beneen yoon bi tamit su la ko lebal seet ba pare ba mu demee mu nekk fi naan si daaw mënu ñaan di waxaat loolu. ma tax ma dem ma wax ko loolu. laa nekk sa xarit. doomu la rey la jaale la quoi. Ah, doomu la la jaale la. déedéet nag bul dugg foofu nag yow itam ah, yow yaa sama xarit nag ay dëkk non lii la xarit di njëriñ. Mm-hmm. xarit xarit lii lay njëriñ ma tooñ la nga ne jéggaloo nga la. sama doomu ndey ah ku tuuti rek du sangu wa. déet waaw waaw waaw déet du sangu nii nii ñaare ñaare. da ngay tuuti wa. non ñaare waaw ñaare da ngay tuuti. ah moo tax yow nga tuuti ñaare laa wax. moom mooy lépp moo tuuti eh, eh. dafa am lu nekk sama xol rek moo tax te ma loolu laa la bëgg a wax. nekk nekk sa xol. Oh, oh, oh,